aux waa Guédiawaye ndaw ñi waaye itam responsable yi ñu fa yéene takk suñu ay ndigg topp ci yoon wi nga xam ne moom la ñu tuddee xalal rawatina bi ñu nee ñu topp ci ginnaaw Amadou Ba mi nga xam ne mooy candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ñu fa yéene liggéey ngir nag gën a mat Guédiawaye mu mën a am ndam ci ngoonu ñaar fukki fan ak ñeent ci yoru mars bu ko defee nag mu mën a wéyal liggéey bi nga xam ne daanaka ñu turee Macky Sall sumb na ko ci bopp réew mi. ndax bilan bi nga xam ne Touré Macky Sall def na ko ak liggéey wu am solo bi nga xam def na ko ci senegal du ñu seetaan nag nguur gi di tàbb ci loxo yoo xam ne daanaka amuñu programme waaye itam amuñu rekk pas-pas bi ak mën-mën gi ngir jiite réew mi. à euh, de, de de programme à des